Bambilor mu ngi nekk ci fanweer ak juróom-ñetti kilomètre ak lu ko ëpp ci digganteem ak Ndakaaru ca la ab daara moderne juddu ñu di ko wax daara almasid nga xam ne ki ko fa teg di oustaz Alassane Mbaye mu nekk nag lu nga xamante ni rek euh, dina gën a ñoŋal njàngum alxuraan ki ko xamle nag di madame Fatoumata Diallo inspectrice éducation et formation bu Sangalkam accompagnement daara yi euh, ci administrativement et pédagogiquement daf ñoo war donc looloo tax vraiment ñu ñëw fii pour rappeler rek ñun ñu ngi am euh, presque 250 daara yi nga xam ne moom la ñu recensé ci gox bi et que parmi ces 250 daara 129 daara déjà jot nañu seen autorisation euh, ci accompagnement bi ak euh, surtout di ci profité di ci gën a remercier Almufati sama inspecteur des daara ak yaa sayda mi nga xam ne ñoom ñoo nekk di leen gunge donc comme ni nga ko waxee rek accompagner daara yi loolu dafa nekk Euh, vision Macky Ba di conseiller municipal ci commune bu Bambilor teewaloon fa maire ba moom li mu xamle rek mooy lii lu gën la ndax it nag njàngum alxuraan dina bokk ci liy tax xale yi mën a yeewu te soxla nañu ko bu baax ak lu mu sore xale yi dinañ fa dugg te dinañ fa jàng alxuraan. li waral sunu teewaay bi tey yàlla dogal ngeen indi sunu commune def ko fi franchement amuñu lu dul sol sunu daal bàyyi lépp lu ñu doon def ñëw bokk sax même bés bi. waa parce que euh, avantage la tey commune yu bëri na mais commune bu sañoon tey am ku ñëw installé benn daara si sa commune jàpp say xale daam jàngal leen nampatal leen si lislaam donc nun en venant dañoo ñëw parce que nun la ko defal donc vraiment dañoo ñëw si contacter ñëw parce que dañoo war a ñëw parce que li muy def ñoo ngi moom ñoo ko bokk dañu ñëw si ëppale ñun la waroon. njàngul alxuraan dana yomb ci benn côté parce que nun lu mu sori pour nun dafa jafe dafa jege Parce que ce n'est pas la commune de saint Camin, c'est la commune de Bambilor. Donc la commune de Bambilor, même si vous installez au sommet, ñun dañoo jàpp ne incha allahu taala fii ak ay fan yu wol fii ak atu néew dana nekk centre ville bi. ñu ngi jàngee ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu naan sàkku xam-xam farata la su fekkente ni sax da ngay dem ba Chine loole nag tax na ba fu daara nekk ci Sénégal nit yi dinañu fa dem sàkku xam-xam ngir dëggal waxu rasulilaay boobule.